di am contentement bu baax a baax xam nga di jégalu ci retard bi parce que ci ëppoon presse bi ñu doon ñëw mais tali bi moo xat lool fu ne jaar nañ fa ci koñ yi mais dañ mujjee ñëw fekk muy wax fi mais benn la rek quoi vraiment vraiment di kontaan di ñëw teewe ci ëppoon presse su Garga comme ni ko daan defee rek muy champion xam di nit ku baax woyof yaa dañuy wax yoru jiko mbër quoi ndax xam nga kuul bu nekk ci moom ak baax quoi vraiment mais dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam allah dimanche moom ñoom Dame Sène ah, ñoom talba mbër parcelles yi am combat yëpp yàlla may leen ko incha allah. bu yàlla. ñu gis ni ci cadre bëri kon li ma ko wax sànq bokk na ci mbëri dàq bëri si ci parcelle ñu gis ne euh, tey nan nga gisee yoonam ndax gis na ñu ngi naan garga yoon bi dafay yeex adversaire yi muy jël mais loolu nan nga ko gisee en tant que sportif. Oh, mais xam nga lamb moom. man li may wax Sénégal dañu dañu gaaw a fàtte quoi. xëy nag géej bëre bi tuuti la xam nga combat yu avorté ci digganteeg yooyu noonu loolu moo tax mais garga champion yu maanaam ñi mu daan yëpp maanaam ñu tëla ba muy daan Valdo ba muy daan ay ñooñu xalaatul woon boobu ne leen daan mais mën bëre bi ci moom ak jàmbaar gi ci moom moo waral loolu mais nag xam naa comme lu mu lu ma ma ko wax sax lu mu gëj a bëri lu ñu gëj a bëri <laughs> moo tax Sénégal dañu xaw a fàtte tuuti mais daal li mu war a def yëpp mun ci woon parce que combat bi jàpp nañ ko mu yàqu-yàquwaat te boo bëlee mu ngi yi dañ koy ñaar rek incha allah yàlla muy nday may dam may ko ndam parce mu ngi ci li mu war a def yëpp def na ko affaire li moom lu ci def koy bàyyi ci loxo yàlla may ndam may ko ndam rek ak mbër parti lépp incha allah waaw pourquoi pas ma ni jàmbaar production moo xewle ak jàmbaar wrestling ah loolu lépp parcelle la kon parcelle moo xewle lu ne xaj na ci incha allah daal dañuy wax waa parcelle waa Fadia waa Cambérène yëpp comme ni ñu koy defee ñëw soutenir seen mbëri ñu dem yàlla may la ndam incha allah ñëwaat parcelle neex fayaa neex Cambérène neex fépp neex. mais Modou euh, barki démb ginnaaw mu la nuyu nuyu ak Garga 2 barki dama laaj Ahmed dem ma laaj ko nekko diggante ambulance ak ki nga xam ne moom mooy Garga 2 dem Deme ne ma bu dee ci wàllu bëre ne na bu waxee la yàlla rek moo moom en tant que mbër ak ni mu leen xamee yaa ngi dégg daa jàpp ne Garga 2 moo pule bëre waaye bu jëmee ci xeex jàpp na ne ambulance man avantage wax boobu yow noo ko gisee. mais amul amul gëwuma benn sens bu ambulance am ci Garga parce bu dee xeex non non sans caaxaan li may wax li ma gisa ma xam la bu dee xeex Garga moo ko dàq bu dee bëre Garga moo ko moo moo ko dàq bëre tamit waaw ba pare macha allah ëpp ko doole yàlla daal moo yor ndam yàlla mi may ndam yàlla na ko yàlla may ndam incha allah may ko mbëru parcelle yëpp allah. mu mel ni mën nañoo jàng ci ci moom muñ kat parce que li tax ma wax ko mooy gëj na bëre. defe naa ca Valdo la mujj a bëree combat bu mu am ba jubat ko yàlla indi ndox mu yàqu mais muy gérer nga ànd ak moom di ko pousse di ko pousse di ko pousse ba tey jour si moyen trois la ñu mën a wax yaa ngi dégg ay quelques jours a dox digganteem ak combat am tey ku mel ni Garga 2 boo ñu doon wax qualité bi mu am mentalement est-ce que nekk na euh, maanaam mentalam mental bu baax la wala. waa li may wax rek Sénégal bi ñu nekk gerte caaf sax boo koy boo koy boo koy jaay faaw nga am mental bu dëgër. parce que xam nga nit ñi ñu ci ëpp mën nañ découragé loo nit xam nga wax yu seweeg yooyu te yàlla def na ni moom am na opportunité tukki tey bu doon keneen la amaana dem na toog bu yàgg mais bëgg-bëgg moo ñu sonal ci lépp muy làmb làmb yàlla dafa ñu ko nattoo ñu bëgg ko ba tax na lu ciy mën a daj coono bi yow doo ko yëg ndax amur bi quoi ba tax na xam nga loolu jàmbaar rek moo ko mën daal ma jàmbaar la moo tax mu tenir ba fii nii dañuy wax jàmbaar jooju incha allah yàlla na ko ci yàlla walloo daal ci combat bi incha allah yàlla may ko ci ndam bu sedd ko mais parcelle tamit dinaa ko seetlu kaar laay wax sax balaa ma jamaykee di dégg parcel ci côté promoteur actuellement macha allah gis nañ ni ñun dikkee gis nañ ke moo jiitu ñoom ibu ibulaay jàmbaar ñëw xam nga muy lu bees moor lépp di parcel Pape Abdou Fall sa parcelle la dëkk roi bi nekk parcelle comme ni ma koy waxee lan mooy secret parcelle actuellement. waaw ah, mais sant yàlla d'abord rek xam nga moom ma ne dëkku la ñoo ngi wax yeneen banlieue Pikine Gueye yëpp. mais parcelle dëkku mbër la ay champion yu bari dañ fi nekkoon comme ku ñu daan lii rek yaaram ay ñoom baaboy parcelle dëkkoon ci mel na ay Mathieu Perala na ko yàlla yërëm bari na ñun dañu soqee ko si keppaaru ñooñu ñoom ay jos xam nga ñoom papa ñoom ñëpp ay ñoom Moussa Dioum xam nga yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ñoom xaadim kay métrage ñoom keppaaru mbër la mbër dafa yàgg parcelle xam nga ba tax na tamit yàlla boole ñu garga dara ñëw rek énergi ñun ñoo ñun ñëpp ñoo bokkoon écrit benn la mos a doon pour man jàmbaar rock énergie dóor dóoraat dóor dóoraat rock rock énergie la ca rock énergie la juddoo doo ko nga ba tax na yëpp benn la dañuy jàppalante nu mën a doon xam nga te lépp euh, maanaam bëggante jàppante te yàlla tax da cee am solo te wax dëgg yàlla ku ci am combat ne rek da nga yëg loolu maanaam day mel ne ñoom seen combat nu nuñ ciy sonn foo nekk ñu fekk la fa di la soñu si entraînement yi te yàlla dafay dafay fay yéene daal xam nga maanaam yéene boobu rek bu ko yàlla fay rek ma ne parcelle woyam doorul fay ci làmb incha allah waaw te loolu dimanche nu ngeen fas yéene ñëwee ak ak Mansour Ba jàmbaar production moom tamit muy liggéey lu am solo dimanche waa parcelle mobilisation bi looy wax supporteru parcelle yi waa di leen wax comme d'habitude rek xam nga ñu jàppale seen promoteur jàppale seen i mbër xam mu parcelle xew le cent pour cent jour boobu noonu parcelle la tëgg parcelle ay bëree non incha allah ndam yëpp fii lay ñëw si gëm naa loolu wallahi gëm naa loolu <laughs> gëm naa loolu baax baax Mansour tamit di ko encouragé xam nga dégg nañ xew xew yeeg ñoom seen mais affaire yi moom sometimes du ñàkk fakatal mais comme ni nga ko waxee rek CNG nañu tëddee xam nga nekk ndey di seex tëddee njaaxanaay yemal yëpp parce que ndaw mu ñëw mën a investir ci leneen yàlla jox ko wërsëg mu ko investir ci làmb ko dañ ko war a encouragé ba bu am dara lu koy découragé loo ba muy génn ci làmb parce que seen entrée ci làmb yokkute la ci làmb gis na yàggu fi macha allah jéego yu muy def ci làmb dañu ñaan yàlla gën koo dëgëral exemple ba lu ci séntu yàlla dimbali ko mu am ci saxlu lu kawe njortam di wax ay sponsor yeeg ñëpp nañ ñëw jàppale parce que jeune bu ambitieux la di liggéey pour Sénégal di liggéey pour Parcelles rawatina gox bi ñu dëkk di ñaan encore daal ndam yàlla may ñu ko. daa mel ni pare na pour le douze pour mois de novembre. waaw pare na yàgg na maa ngi ji di ba tas chaque jour xam nga pare na yàgg na wallaay laa yàgg na yàgg na yàgg na yaay. problème nan ngay ndax dañ ne Modou dafa nekk noo xam te macha allah nitu bruit la macha allah. heure boo amee combat rek da ngay ruube gars ruube bi mooy gis nañ sa combat échange bi am na ñaari coopération bi ñuy wax que ni dafa lim Nicolas dafa coopéré ak Alburax ñii ne léegi amaat beneen combat boo xam te daa duggaat sa biir combat muy combat comme Gris Bordeaux ak Ama loolu yëpp ruube boobu ñaan Modou Lo eh, dafa il est très tactique loolu noonu nan nga koy yëwee. loolu du sama coobare xanaa gis-gis la rek man su ma sañoon bëri naa bu yàgg ba nekk ci leneen quoi vraiment mais luñ comme ni ñu koy waxee chaque fois rek lamb moo baaxoo ak coow. ba tax na da ngay génn ci lii mais nag man moom wax dëgg yàlla mar naa ci coow yooyu vraiment ñu jàpp combat bi parce que yàgg na ba ma bëri Eumeu Sène ba pare tak ci laa jëloon avance su Ama Baldé man na quatre ans xam la mais nit ñi nag ñoom ñooy wax sometime na ñuy gisee wala nu leen neexee rek mais man bëree ba débranché wu ci yooyu ne ci leneen parce que comme ni ma koy waxee rek ñee seen wax yi vraiment doyal naa ji sëkk non sëgg sëgg. léegi moom jàpp na date. dinaa tàggali koog ñoom ñu ne ci leneen. léegi jàpp na leneen. waaw la cinq yàlla na ci yàlla yóbbu jàmm ak salaam may ñu ndam bu soobee yàlla. Garga <laughs> fan yi dañuy dugg ci gaal gi ñu gis ne am na ñoo xamante ni dañ cee xaw a am ay ay blessure ku ci mel ni Ronaldinho am na yeneen mbër yoo xamante ni ñu ngi ci làmb loolu boo ko gisee en tant que frère lan ban message nga leen di jox. waa di wax rek xam nga d'abord dëkk bi métti na dëgg wax politiciens yi ñoom laay lancé parce que tey ñu ëpp ci jeunes yi ñoo leen fal bu yàlla doogee ñu falu nag bu ñu fàtte jeunesse bi parce que ñu ci bari perte espoir rek moo tax ñuy def loolu ñoom tamit di leen wax ñu bàyyi seen xel parce que am na lu nga xam ne c'est un peu risqué xam ñoom ñëpp ku ci nekk teral sa waajur moo la tax a jóg di wax ñu jigéen ci génn àdduna d'abord yàlla yërëm leen xale leen àjjana ñu ci am ay gaañu gaañu yàlla nañu fekk jàmm mais suñu nguur yi ku fi nekk kii ñëwaat ku mën a doon na bàyyi xel ci jeunesse bu baax a baax a baax que jeunesse mooy yaakaaru réew ñoom la ñu yaakaar suba tey war nañ leen taxaw xam ma ba du ñu am lu leen découragé seen réew ñoom ñëpp ñu bëgg a daw pour lu ñu am xam nga góor góorgóorlu jàppale jeunesse bi ñu am ci ay liggéey jeunesse bi tamit xam nga ñu jéem a jàng wala ñu def ay formation xam nga parce que tamit boo amul formation wala jàngoo boo demee bitim réew tamit xam nga lu yàlla xam doon ay commerce wala yenn rek ngay mën def nañu góorgóorlu xam nga yàlla moom waxul kenn dara yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal li gën ci Sénégal rek yàlla def ko daal allah. waaw di nuyu di nuyu waa Kajoor gépp ah. Bas. Bas waaw waaw di sant yàlla rek waaw bëgg rek xam nga moom suñu grand frère la yàlla moo dogal li muy dogal xam nga yàlla moo dogal ni moom suñu nit la suñu xarit la maanaam moom maa moom bi ñuy xamante yaakaar naa ikrim laa njëkk a jaar ci ikrim rob énergie nekkoon ñu teete ñu wax yaatal ñu wax dëgg yàlla ba ma dem dóor dóoraat teewul wax dëgg yàlla mu ngi rafet di ko ñaanal rek yàlla na ko suñu borom lafal cat musal ko ci seetaane combat bi mu jëm ñu dinañ ko ci gunge yàlla dina ko ci may ndam incha allah. waaw dañuy féliciter d'abord Bour Sine am na mbëru parcelle bu amoon combat tey muy Tafa Ndiaye Bour moo daan ñu ngi ndam bi jikko waaw incha allah Tafa Ndiaye la xam nga am bu rëy ñu ngi koy bi jikko incha allah yeneen yëpp yëpp yëpp yàlla def ci ndam daal incha allah. waaw waaw. waaw macha allah pare na wax dëgg ñaan rek yàlla fal ñu cat musal ñu ci seetaane combat bi ñu jëm yàlla may ñu ci ndam bu sedd guy bu amul benn werante incha allah waaw. nañ ci côté yëpp ñaan rek yàlla musal ñu ci cat ak ndog waaw. waaw nañ ko de mu nañ ko trop xam nga li ñuy wax daal mooy ñu ngi woo waa Ndande Fall waa Kajoor gépp Ndande Fall Ngaye Mekhe Kébémer Palmer xam nga. 46 villages yi nga xam ne ñoo wër Ndande yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa Cité Fadiana parcelle 1 ba 26 fàttewuma kenn maa ngi woo ñëpp di woo waa sas waaye ASC jokoo di leen wax ni combat bi seen combat la na ci ñëpp jàpp di sant nag sama mbokk mbër yi nga xam ne dañoo bàyyi seen it yëpp ñëw ñoom Anaconda ñoom ah, xam nga sama doom nday Franc mu ngi ne sama taalibi la xam nga ñoom góor a soog ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di nuyu sama gaay daal dina wax ni taxawaay bi rafet na quoi di woo nag monsieur le ministre Amadou Ba di ko wax ne combat bi na ci ñëw jàpp bu baax a baax ah di woo Pape Malick Ndour di ko wax ne ko combat bi wax dëgg yàlla bëgg nañ mu jàpp ci bu baax di sant Modou Lo non Modou moom duñ ko duñ ko duñ ko wax dara moom yàgg yàgg na di ci jàpp wax dëgg yàlla moom dañ koy dañ koy sant rek di ko gërëm di sant tamit sama patron Gora Sock <laughs> waaw sama sama patron la faa ma sant ko quoi moom sama doom ndey la waaye waaye waaye moom sama taalibe la man maay sëriñam xam nga di sant sama grand frère ñoom ñëpp fu ne ñu ngi fay dugg di sant waa tamit waa Joal góor gi waaw góor gi maa ngi lay ziar bu gis naa yitte ngi ciy def yëpp maa ngi koy sant di sant waa kër Omar xam nga Sër Mor Ndiaye bëgg naa tamit maa ngi koy nuyu ah doomu nday di sant tamit loolu loolu loolu moom lañ gëm loolu lañ gëm teguma ko comme li ma wax li ma wax teguma ko ci par ah. ma xam laa wax parce que ñooy bokk lu nekk di entraîner chaque fois xam naa mën mëninam te yàgg nañ xamante bokk li ma wax tegu ma ko ci ay parparloo ci lu ma xam laa ko teg. kon yow da ngaa gëm naa ne bu ñu xeexee mu dor mu daan bu ñu bëree garga daan ko loolu laa gëm te yàlla na ko yàlla def incha allah. waaw di parce que moom lim ñuy loo chaque jour mooy moom jàmbaar la nit ku gëm boppam la. Modou tey fu mu yegsi ci làmb tey maanaam boo ko ko jigee rek da nga war a def fulla ak fayda parce que moom bi mu ñëw ci làmb ñëpp dañ doon wax ni kii matul mbër mu ñëw def fulla ak fayda ba yàlla dogal mu nekk roi des arènes kon loolu dañ ko koy sant bu baax di sant suñu président yi kii nag maam père ba di ko ñaan di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram xam nga li ma la di ko sant bu baax di ko gërëm maam père ba Mansour xam nga ak famem yëpp di sant lum graphi gis nañ taxawaay bi mu def wax dëgg yàlla di sant ñoom Ibou Ndoye xam nga ñoom Fiso ñoom Cheikh Cheikh Diop xam nga ñoom disco ñoom yëpp daal maa ngi sant ñoom Omar Kebe Ibrahima Tine xam nga gars yëpp maa leen sant ah ñoom ñu sumbay ñoom biram sama waa kër maa ngi leen sant bu baax di sant sama waa soxna soxna bu baax a baax jërëjëf merci beaucoup jaajëf